bu dee journaliste sénégalais nga xamal ni Macky Sall respecté wu la njiitu réew mi li ko gënal mooy Samba Alar dem ci journaliste yi nga xam ne ñoo ne bitim réew ngir waxtaan ak ñoom xoolal sax àjjuma ci ngoon moo nàmm tànkam sol dàllam dem ca BFM TV ca France ca seeni biiru studio ba mu faloo ba léegi toll na ci fukki at musta sol dàllam dugg ci benn télé mbaa rajo fii ci réew mi moom Macky Sall. am na ñuy laaj nag ba xam journaliste sénégalais yi dinañ bind bataaxal ngir sàkkoo waxtaan ak njiitu réew mi dem leen palais présidentiel di ngeen fa fekk ay demandes yu dul jeex ñi ko yónnee sax jotuñu kayit bu leen wan ni jot nañ seen kayit kenn leen tontu. ana ndaje bi nga xam ni 31 décembre la ñu waxoon ni Macky Sall da koy seq ak journaliste yi waxtaan bii weesu amaluñ ko ñu ne dañuy bàyyi ba élection locale yi weesu élection ya jeex na ñu ngi sóobu ci yeneen élection te defuñu ko ndaje amul kenn waxatu ci lu ci jëm. Macky Sall ak ñi mu àndal respecté wu ñu respecté wuñ journaliste yi président Sénégal kay fan ngay xamee ne ñàkkal na fayda journaliste Sénégal ba noppi du wax ak ñoom tubaab yi lay waxal. li ci gëna graw nak moy mu jox interview ben way jo xamni mom lañuy wax influenceur tuddu califo nek ci internet bi kat bu mag bo xamni mom mi Macky Sall amul xéetu saga bu mu ko saagawul foo saaga saga a ñaaw saga nako Macky Sall mu dem France anda ak waji mom, di lëngoog mom, di waxtaan ak mom bakoy defal interview. te mo ne Macky Sall mi bu ngeen seetloo sa yi wax ci réseaux sociaux yi ne li ci am jaaduwul saaga xasta yi jaaduwul muy saga kat bobu motax lii yoon fi ñu toll nii mooy ginnaaw moom ki ko doon saaga mi ngi lëngoog moom député Abdou Bara Dolly Mbacké dañ ko war a génne ci koso bi looloo jaadu. ca loola ba tey gis ngeen communiqué bi ministère de la justice génne keroog ne wéy moom moo wax procureur mu jàppalu kii di Bara Dolly jëlee fii nag def ko coupe di ko yëkkati ca kaw est-ce que ministre de la justice soxla